depuis 2015 la <laughs> euh, le plus fidèle des libéraux Tange Daouda Niang ñu koy euh, nuyu bu baax ah Cheikh Ahmed ñaan sama sëriñ ñu nañu la bu baax ah ñu yëg ci kaw tribune bi eh, tey ji nag 142 universitaires ñoo yëg ci kaw tribune bi hmm? ñoom ñoo takku taxaw joxante loxo taxawal seen coalition coalition bi nag lu ñu si jublu du lenn la dul ŋàññi ñi réew mi toll comme li ngeen doon waxtaane sànq waaye ñoom nag dañu jiital ne fii réew mi toll ñii ñu nekk ci kaso yi bari na lool détenu politique yi bari na lool bu ci gën a pës moo di Ousmane Sonko ma ci xiifal ma hmm. ñoom ci boppam nee nañu loolee la ñu bëgg nag président Macky Sall daal ciy wax nanu libéré kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko en tout cas ñoom cent 142 universitaires yooyee bokk na seen xeex nee nañu bokk na ca Serigne Diop ancien ministre de la justice juge de la cour africaine des droits de l'homme Aliou Sall ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo porté combat bi njiitu réew mi nag sàkku nañ ci moom mu daal di taxawal li nga xam ne moo di mesures yi nga xam ne ñoom ci boppam Euh, euh, wax nañu sax ngir jàmm daal di dellu siwaat fii ci réewum euh, Sénégal en tout cas ñoom 142 universitaires yooyee jóg nañu nag jóg nañu def seen coalition taxaw ngir jàmm daal di am fii réew mi toll ñoom 143 42 universités dama xamul. fan la gis fondu wu la ñu nekkoon fondu sur image. bi bi dëkk bi di yëngu-yëngal ba léegi dama xamul 142 universités yooyu fan la ñu nekkoon. bi ñu daal cocktail Molotov yeeg ñoom seen. mais en tout cas ñoom nee nañu détenu politique yi da ngay laajte wala da ngay laajte dong nag fan la ñu nekkoon bi ñu taal ay auto bus yëpp tout bi ñuy bi ñuy euh, dajji Auchan yi waaw bi dajji boutique jàmbur ah, ah? mi am taaba taaba ba am sa ñu daal di koy taal waaw ñoom fu ñu nekkoon sal kalandoo université bi waaw nekk ñoom ci réew ah. damay laaj dong nag damay laaj rek damay laaj rek waaw damay laaj rek en tout cas ñoom fu nag feeñ nañu mais mais mais ñii ñuy wax universitaire c'est vrai qu'il y des universitaires parce qu'il y a des avocats il y a des mhm. magistrats il y a des professeurs il y des docteurs mais il y a également des hommes politiques et des ah. défenseurs des droits de l'homme bu ñu waxoon parce que xoolal xoolal ñi signé ñoom ñëpp et ils ne sont pas seulement du Sénégal am na ñu ñu cosaanoo Mali am na waa Burkina Faso am na waa Bénin waa Paris et cetera donc du ay Sénégalais international mais bon on dira peut-être des waaw nañu wax personnalité mais pas uniquement des parce que boo waxee universitaire xam nga communication la rek dañu yóbbu ko ci ah. benn level bu kawe ah, kawe kawe. waaw kon bu dee loolu comprendre la mi ngi ñuy nuyu di nuyu Simon. <laughs> nee na scanner nañ ko yóbbu grande gueule. scanner bi moom débat grande gueule. pour yóbbu ko grande gueule. ñaari scanner yi. sànq rek mënoo laal lan mooy burn-out. burn-out Ibrahima Pouy ñu koy bu baax Sénégal ñoo ngi burn-out. c'est l'épuisement professionnel. liggéey bëgg sonn. waaw yenn saa sax day day mel ni ku xaw a. dof rek tipsé voilà wala ñoo tipsé. Sénégal moom yàlla bu mu fa toll. <laughs> en tout cas ñoom nee ñu 142 universitaires yi nga xam ne ñoo taxaw tey ji def seen coalition nee nañu na président Macky Sall bàyyi ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko naka libéré jamono joojee nag li ñu naan tontu du forox. Mhm. de fu fas du dem xel a fay doxantu. maa la ko wax. ak tontu a jóge na ci bu Ngabou Sarr bu saar mi coordonnateur des sages de gëm sa bopp à bay di jum. docteur la lan. es lettre. es la. Mhm. boroom xam-xam la. nee na ñii di wax dañoo xam président Bougane Gueye Dany ñi ko wër doo si gis benn màggetum sàcc. waaw benn màgget buy raasaatu amu ca. nee na ay politiciens professionnels nekkuñu ci ñoo xam ne boo xoolee seen carte d'identité si profession ñu ne politique politicien. <laughs> <laughs> ñoo xam ne politique si la ñuy xëy si la ñuy gog si la ñuy ndékk si la ñuy añ laal couchant te duwaale ko ñoo xam ne bu ñu toogee journée waxuñu politique lu jëm ci politique du ñu existé ñoo xam ne dañoo existé parce que coowu politique mu am langaamu ci borom doole yi nee na boo seetee ba ci biir biir gëm sa bopp am nga politicien professionnel de foofu ay boroom xam-xam ñoo ci nekk te amul benn màggitum sàcc bu ci ne waaw lii ak tontu la bu gaabu saar yéene bi ba tey la ñuy desandi ak li ñu doon waxtaanee sànq wàllum soble si en tout cas Macoumba Diouf directeur général bu horticulture dikk na ci njëgal soble nee na spéculation da ci am de gaa ñi dañuy yokk te teguñu ko fenn bi dañuy yokk te teguñu ko fenn fenn fenn fenn nee benn problème nag amoon na. Hmm. ndax euh, ñi nga xam ne ñooy bay soble fii ci réew mi bi ñuy bayee ba noppi ngir bañ la leen daloon dalaat leen. Hmm. maanaam mu nëb seeni loxo dañu ko jaay dañu profité daal di koy jaay. njëkk yu ñuy gis ñu jaay ko léegi am bu ñu amoon yoo xam ne mën nañ ko stocké ce qui veut dire que kon dina am loo xam ne dañ ko fiy denc pour ëllëg problème boo amee ñu daal di génn jaay mais nee na nañu ko denc di jaay di xaar période bu nga xam ne rupture am na ñu doo a génne seen soble day nëb seeni loxo nee na loolee moom moo andi rupture bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci benn lu mu wax li de dara aju ci ngooñ aj na ngooñ kat mu mën ko pana aj moom li nga wax ni il reconnaît que ne euh, kon euh, sur surproduction bu amee au Sénégal dañuy gas suuf ça il le li nga wax. dinañ ko reconnaître parce que amul fi ñu stocké. mais c' est encore. problème plus grave. waaw bu waxee ne ne spéculation bi c' est inacceptable mais spéculation kan moo ko indi parce que bayuñu. pour mun a am auto suffisance autosuffisance en oignon or c'est pas du dara lu extraordinaire loo xam te ne ni jëm na ci mbayum soble mhm. autant Hollande di ko def autant Maroc di ko def nous on peut produire même de l'oignon de meilleure qualité. très bien. buñ ci jàppee. ah oui mais non c'est parce que ils ont failli boo xam ne ndox mi bariwul. comme nee nañ ñoom asmaa nee nañ soble bu mbay mi. waaw ndox dafa est-ce que xam nga ne Sénégal ñu ngi bay soble boo xam dañ koy importer yóbbu ko à ah, l'extérieur di ko jaay c'est la meilleure qualité par. ñu jël ko di ko yoon yóbbu. très bien ñun ñu bàyyi comme fii rek jën yu baax yi ci géej gi dañ koy yóbbu. comme suukar si waaw yóbbu bu baax bi comme gerte gu baax gi. je vous parle de burn-out vous ne voulez pas comprendre. non xoolal jën bu baax bi dañu koy yóbbu. bàyyi fi ñun ñu jox ñu yaabo te yaabo sax léegi day dem. en tout cas jamono joojee ñuy wax soble. scandale foncier ba nga xam ne moo am sa kër Moussa foofee nag soo moytuwul tool bu mag ba nga xam ne moo fa nekkoon te askano di cee bay soble soo moytuwul nag tool ba dana dana fa jógee hmm. waa village ba démb ba danoo takku taxaw ne mukk du ci dal ndax seen projet ñuy wax naan Villeneuve Villeneuve gii dañu teg ba site ba fa nga xam ne ñoom ci boppam fa la ñuy dàq seen wërsëg fa la ñuy bay soble nee nañ fu mu nekk dañ ko bëgg a morcelé di ko jaay te duñu ko nangu dañ leen fa bàyyil tool bi ndax ñoom ci boppam waa village ba si la ñuy yëngu 1500 emplois yu nga xam ne nii ñoom ci boppam fa la ñuy dàq seen a wërsëg bu ñu dékkee foofu la bu ñu añee foofu la bu ñu reeree foofu la seen i bu jàngee it foofu la seen dépense sa tool ba la nee nañ tey jii ñu nay wax ay xawma lan Villeneuve bëgg dogot dogotee foofu di ko joxe manul ne neen nañ leen bàyyeex seen i tool tool bu bii nga xam ne ñoom foofu la ñu ne ngir nag ñu mën faa dàq seen wërsëg mbayum soble bi foofu lañ ko fay yëngu donc tey jii bu ñu ko dogot dogotee soble dina gën a ñàkk Mamadou Fofana ngi taxaw taxaw yu. dafa aj garde bi foofu nekk. dafa aj garde bi. 37 rescapés ñu rapatrier leen en tout cas mooy ñu face booy yi maa ngi doon wax sànq faw ñu taxaw leen nag assistance la ñu soxla parce que nag benn famille daanaka boo fa ñàkkee 10 ci say membre ñàkk nga de. loolu moom bu ñu la taxawul moom wax ma laa dof imagine benn waajur boo xam ne ñàkk na doomam ak ay sëtam ñoo xam ne nii ñoo nekkoon dooleem. parce que ñoo daan dem tëmbi biir géej andi ci kër gi ñooñu ñëpp bu ñu demee yow nga xam ne yow foogoon nga ne yaa ñu nekk à la nekkoon nga retraite am nga ñu la jàppale ñoo bu ñu demee yow nga war a jógaat wala delluwaat di daw dépense andi ci kër gi dana metti loolu donc nañ leen jàppale ña nga xam ne nag ñoo ca faatu leen mujjee denc sur place Simon loolu la ñu mujjee wax le quotidien yéene kaay ñi ñëw démb je crois savoir am na ku ma ko dégg mais c'est à vérifier am na ñaar ñoo xam ne ñibbiwuñu Fass Boy dañ leen mujjee yóbbuwaat hôpital def naa principal tellement que voilà c'est vrai que tànne nañu mais ñu gën leen suivre médicalement moo gën dina ci baax waaw dina ci baax le quotidien yéene kaay dikk ci migrants secours Cap Vert tristesse en tout cas la ñu nemmeeku foofee ca Fass Boy juróom-ñaar ci ay néew foofee la ñu leen denc sa Cap Vert fanweer ak juróom ñaari daanaka Euh, euh, euh, survivants yi andi nañu leen defum dëj maanaam dëj bi nag foo fees sa face booy dana metti lool. parce que nag foo xam ne ni lu ëpp 60 ñoo fi ñoo faatu. non jéggi na dayoo metti na de metti na trop ñu wax ko metti na ñu ñàkk koo wax metti na waaw. la nga xam ne moom mooy xew foofu sa face booy bu ñu ko waxee metti na bu ñu ko waxul metti na sama mbokkum tëngéej bi Pata Ndiaye c'est direct news Euh, mas naa nekk directeur bu port. sama jëmm voilà absolument moom la Pate Ndiaye. Pate Ndiaye. nee na Barça wala Barsax. Hmm. foofu nee na dama naan Barça wala Barcelone. <laughs> nee na boo leen gisee situation bi ni mu demee nii ces derniers cessent à rejoindre les pays méditerranéens ou européens avec l'espoir de trouver ñoo euh, ñooñu moo ji ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wetu tefes yi xam nga sama mbokk club bi ñoo dëkk ci wetu tefes yi ñoom ñëpp ay nappkat lañu bu ñu demee ba gisatuñu lu ñu napp. lan la ñuy def gax la ñu xam tëmb biir géej jàpp jën andi jaay li des ñu ndawaloo ko loolu bu amatul dañuy toog di xul nee na moo tax ñu sa bëri yebatuñu jën nit ñi la ñuy yeb dem mbëkki mooy wax de sama mbokkum lébu bi nee na jeune jeunes vivant des produits de la mer si sans activité durant tout l'année nee lii rek moo tax lii rek moo tax ñuy dund lu mel nii maanaam mbëkk mi dana jafe na ngir saafara ko daggum garab gi trafic de bois bois rouge bi nga xam ne moom la ñuy du moom la ñuy gis. bois de rose. bois de rose mooy bu rouge bu bois rouge. waaw waaw loolu la ñuy wax moom la ñuy wax fii ñun bois rouge. bois rouge waaw parce que bois de rose ah. ah surtout bu métallique bi. sax vacance am métier bi ma doon def. ah bois de rose def naa karo euh, karo euh, laaj def naa ko euh, beneen bi nu mu tudd. Hmm, tolier. Ah tolier lépp bokkoon na samay samay patron ba marqué Abdou Gueye. nee nañ fu nekk trafiquant yi fu mu nekk suñu àll yi la ñu teg bët. face à la euh, raréfaction du produit au Mali. parce que Mali lañ daan dagg garab yi amatu fa saxatuñu. fu mu nekk Sénégal gii lañ teg bët suñu suñu àll bii ñu ngay daggat nag di yóbbu. le silence coupable donc des communautés ñu ne trafic sur le Sénégal Mali une affaire de gros bonnet am na ñoo xam ne nii ah ay borom bi doole lañ. du n'importe kii moom mooy mën a dagg ci garab yee yóbbu c'est plus profond que ça en tout cas ça ayegg Sud Quotidien daal di say dikk nee na yeewi askan wi fu mu nekk nii nag tax na lu taxaw mhm. ñoom ci boppam ñoo yeeweeku ah nee nañ ni ñu leen tënk nii dafa doy li ñuy dund ni ñu leen tanjamalee nii ñoom El Hadj Ahmed Aïdara ñoom Birame Souleye Diop gis nga leen nii le groupe parlementaire yeewi askan wi sans gants avec le pouvoir en place mais ñu ko dara ñoom yeewi askan bi ana vox populi wax na ca mhm. nee na fu mu nekk nii nag yeewi askan boo leen bëggee dégg dëgg nekkatul yeewi askan bi de ñaani bañ naa la ñaani bañ naa wala waa Pastef refuse sa mort et celle de la candidature de son leader parce que nag bu ñu la bindalee sa kii mu tudd boo boo deewee li ñu lay defal certificat la mm. de décès. certificat de ñoom jox nañ leen seen certificat de décès. ñu ne déet. permis d'inhumation. permis d'inhumation moom lañ pe ne moom ko jël <laughs> parce que nag certificat de décès bi état signé na ko nee na partie bi tas ñoom ñu ne kenn du leen inhumé. waa léegi ñoom ci boppam nag dee amul. non jotuñu permis d'inhumer parce que les travailleurs des collectivités sont en grève. waaw ñu ngi ci ñaxtu bi. deewuñu ñu na leer te benn candidat la ñu am moo di Ousmane Sonko mu sell nay leer ñu xamee que noonu ate ñu jàll ci le regard la pression monte cent quarante euh, cent quarante et un la ñu nee nañu ay universitaire la ñu waaye jamono joojee opposition bi nag nee ñu neexul ba neex waaye élection yi ñu bëgg tëgg Antoine Félix Diome mii ñu ko bëgg a dégg bëgg koo dégg nee na wax fa dëgg neex yàlla nag yow dooy nekk juge ba pare nekk nag arbitre juge parti nekk arbitre ba pare nag am position. Antoine Félix mu ne euh, kii euh, cocktail molotov yi dañ koy woowee Café Touba. Café Touba. cay. mu ko ci àgg Café Touba ni mu neexee. Kawteef. Kawteef. waaw point actu nag lu mu wax ci kii yi. candidat yi. les entrepreneurs dañu taxaw de. nee nañ dañuy dem de. waaw Serigne Bou. suñu forme d'indignation. c'est magnifique. Abdoulaye Sylla. politiciens rek ñooy bind lii nii. Ah.